demam nga umpuna mindéef te um na boppub kuy mindéef kudul malaaka ya ko wuuf ak yàlla ak ñamu ko wax yoneen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee su lu wér demiinu yoneen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka ya sappe ni gorom di ko bijjanti di gërëm te di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom te nekk bar sàq ne xéem sëñ Ousmane mi moom la sëñ Amadou Maxtaar waxoon dajale njabootu guy mbind gi gidaar si gépp ñu def benn commission boo xam ni ñooy taxaw màggal ñu def ko nag bañ ko defee nag yàlla def ñoom ñu tànn ma jiital ma ci bopp commission bi Euh, sëñ amul waxtaan tam biñ ci demee ci moom waxtaan ak moom daf ne na ko njabootu sëriñ Tuubaa gépp yëg loolu moo taxoon wër nañ njabootu sëriñ Tuubaa gépp yow nag ak sëñ moom yëf ndax sëñ Baar ak sëñ Amul Sawaar te bu ñuy bi tam sëñ Baar ak sëñ Mor Moussa la wax kon demal nañ la ci njabootu sëñ Tuubaa yëpp ak cheikh yi am nañ ci dem dem nañ waa kër maam Cheikh Anta waa kër maam Mor Diarra bi loolu amee tam xam nañ ne centenaire muy téeméeraat loolu loo xam ne nii luy luy luy luñ duñ ko mën a am nit parce que du ko am ci ñaari yoon ndax téeméeraat boo ko boo boo ko fekkee boo balaa beneen ñëwaat ba wut doo ko fekkee loolu moo tax sëñ bi ne comme que ci màggalu sëriñ Touba la nga xam Cheikh Moustapha eh, jëmbat te nekkul lu dul bis bi sëriñ Touba wuy see boroom fii ci Touba sëñ bi waxoon ne moom bis bi ku gën a neex bis bi gën a bëgg mooy bis bi muy daje borom ba tax sëñ Mourou Moussa doon def màggal googu màggal gi nag daa waxu ko fóotale waaye sëñ Touba ko moom léegi bi mu ñëwee ba ci centenaire bi nag sëñ bu bëgg nag centenaire bi nekk loo xam ni day day marqué nit ñëpp yëg ko ñu xumbal ko fu ne bañ génnee ci liñ ci war a génn ci génne ci baax baax Serigne jaar-jaar yeeg ak ñi mu àndaloon liggéey liggéey ba ba am agsi bi loolu daal mooy li nga xam ne moo tax a jóg ñëw ci yow sàkku ñaan ak xalaat euh, ndax jéego buñ jéego rek yow yaa jéego di jéego buñ jéego rek yow lañ ko def waaw loolu daal mooy suñ suñ suñ suñ kii ñu bëgg jottali rek ay kàddu yoo xam ni da bàyyi ko ci bàyyi Ahmadou Makhtar jëm si sa jëm ji ak njaboot gi ndax xam nañu ñaari kër yi benn lañ yaakaar naa ni lu jiitu li yónni nañu sëñ Ousmane ñoo bisbi. ci yow sëñ bi wax la li mu bëgg ci bis bi moo waral suñu teewaay nii ñu ànd ko ak ñoom bi ñu demee ñu xam ni lépp benn la kër Cheikh Moustapha ak kër Cheikh Bara dañoo fab cër bépp delloo la ko fab sax njabootu bopp gi jiital leen ci kaw ci kanam loolu nag lañ ci jublu mooy li sëñ Cheikh wax xam ne sëñ Abdou Makhtar yaay jëwriñam moo waral ñu fab lépp delloo ko ci biir loolu itam sëriñ bi eh, xam la ni ginnaaw ku tedd ki bim ñibbisee Tuuba lii mooy téeméereelu at bi mu laaj li ñuy li olof yi wax taxaw seetlu maanaam def am njàngat ci sëñ bi ginnaawam téeméeri at yi li mu jur ak njariñ li ci nekk loole nag ngir def ko nee na fokk ñu yaatal ko yaatal ko ci njaboot gi yaatal ko ci seex yi yaatal ko ci taalibe yëpp ànd ko ak ñoom moo waral euh, ñu tàmbali am na ci ñun dem am na ci ñun demagul waaye niñ ko bëgg a defee mu digle ko noonu nee na dafa bëgg ñu def ko ci régions yi maanaam lu comme dafa jam euh, mu xaw a xat lu néew néew ñu def ko ci ñetti régions Ndakaaru ci Masaalikul Jinaan waxtaani sëriñ bi ak njàngaleem ak lim bëggoon ci nit ñi te mooy nit ñëpp mel ni moom loolu la bëggoon dem Louga def fa lu mel noonu jàngale maanaam ñi wutu sëriñ bi li ñu ko liggéeyal ak li ñu ko yaatalal ci lislaam bi ci yar ci njàngale ci wàllu dimbale ak fànn gu man ni doon ñu jàngat ko ba nit ñi xam ñu wutu sëriñ Tuubaa li ñu ko li ñu ko jàppale ci liggéey bi. ñu ñëw jaare foofu itam am na benn xutba bi suñu mos mujj def ci digganteem ak taalibe yi 1346 ci hijiriya moom it discours boobu nit discours boo xam ne àddina bi mën nañ ko mën nañ ko jëriñoo ku ci sax mën caa jëriñu moom ñu jàng ñu jàngat ko xool ko buñ màggalee ba ci suba nag def benn synthèse boo xam ne liñ jëlee ci loolu loolu daal mooy li nga xam ni mooy li ñu ko bëgg a defaree li sëñ bi digle léegi nag lépp luñ ci def ginnaaw yooyu yaay jëwriñ ji euh, loolu moo waral ñi nga xam ne sa njabootu bopp la ñu fab leen jiital leen ci kanam topp ci seen ginnaaw ñoom ñëpp te noonu la neexee mboolem ñi ku nekk Daaru Xuddoos ñu ànd ko te loolu cir buñ la jox la moo waral bi nga xamee ne jox nañ digal itam ñu ànd ko ak ñoom fas yéene ko te ànd ak ñoom ñu amee ni ñu ko bëgg sëriñ bi mu ngi ci Abdou Mokhtar ndax lii lu rëy li fi noonu ndax moom moo wol boppam téléphone bi yëgal ma ko mu rëy ci ñun lool nag te jomm na nag waaye nag jombul ndax suñ baraa tax mu di ko def du man waaye dama koy rafetlu te yàkkamte woon ko lool nag ndax dafay mbir moom xëy na tey la ko yàlla dogal waaye màggal gi moom bañ tàmbalee la war a toll ni war a toll ba toll ba ba weer suñu nekk sax waaye nag ginnaaw eh, ren la téeméeri at bi eh, sëñ bi xalaat lii génne ko jox leen ko ngeen ko ngeen war koo leeral leen nit ñi loolu di yàlla bu baax te di leen ñaanal ngeen am ci ndam sëñ Moussa yàlla ci am ndam lu jiitu liñ ndam lañu amoon eh, am daal koy rafetlu sant yàlla yàlla boole ci. ñu koy wax ñu ne la boole ci ay ati ati ati at yéen itam ñu leen ñaar yéen itam doole bi leen doole tànn leen su ma dafa leen itam ma leen wér te mekk boolem yoonu mooy boolem jullit ñi ñu ci yaakaar li ci bëgg daal yàlla bu yaakaar tas barke sëriñ Tuubaa san nañ baax kàddu yi nga wax doon sëkk waaye nag jóori ñu fekk jotaay bu jotaay bu ñu waxal sëñ bi te yëkkati kàddu wóor daal li nga wax léegi rek fekk na ko moom daañu ko fekk waatam déet ñoo ngi sant tey gërëm sant sëñ bi nag moom xalaatam bi mu génn ak yéen yi mu am sëriñ bi yal na ko yàlla mottali barke sëñ Tuba taal bi yëpp sëñ Tuba rawatina yéen yéen ñu jox ndigal yi ngeen war koo toppatoo yàlla ñu am ndam ñu am ndam yàlla ñëpp am ci ak yokk ñu yëg ne euh, réew mi àdduna bépp waaw yàlla dafa jàmm te it euh, suñu borom lu nekk mën na ko la mën nag mooy yi ngeen di jëg jug di ko yëkkati woon xawma sax na mu bëgg nañ bëgg ñaan mu toll nii xanaa daal na dem daal ba su ba ba ba daal ñëpp jariñoo waaw mm-hmm. loolu ñëpp jariñoo te yàlla ñu koy dégg yàlla may leen ak dégg ak dal ak xel mi ko mën a jàppe mën koo jëfee barke sëriñ Tuubaa yàlla defal ndam وصل للحق من الحق المبين لي خادما بان وما ليس يبين wasal lil aqi min te um na boppam kuy mindeef ku malaaka ya ko wóof ak yàlla ak ñamu ko wax yoneen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee ca lu wér demiinu yoneen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka ya sappe ni gorom di ko bijjanti di gërëm di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom te nekk bar sàkk